ak suñu doomu ne ci suñu kilifa bu baax ji muy Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général kullu murid waaye xalif général kullu kuy jullit ne di dellu di la ziyaarawaat bu baax a baax Mbacké ne ci tuur sa turandoo xaritam muy monsieur président Bassirou jomaay Diakhar Faye nee bi muy ñëw ba bi muy gaare fii nee moom la doon waxtaanal ci téléphone bi nee donte bi mu jógee ci yow ak léegi ñaari fan la waaye insisté na bu baax a baax ni ko nee mu jottali la nuyoo bu baax ba ak mbégteem ci niñ ko dalalee fii ba ci niñ ko fi terale niñ ko fi yaatale waaye ni ñu dalalee xelam yi ne di jàllale suñu ziar ci turu gouvernement bi yëpp nag ne naam li mu àndal ci ay ministre lu mat juróom la waaye dañoo représenté mboolem gouvernement bi nga xam ni moom mi moo ko jiite suñu teewaay suñu teewaay fii nag. mën nañoo wax ni ci qualité yu bare bare bari. waaye dafay feddali. solo si nga xam ni. solo si nga xam ni. lii ñuy célébrer tey. am na ko ci ñun. ndax euh, màggal bi. ndax màggal bi. def nañu ñetti conseil des ministres yoo xam ni ne président daf ko tudd tuddaat ko di joxe ay ndigal ci bépp ministre boo xam ni war na ci am cër muy ministre de l'intérieur ministre de l'assainissement ak ministre de la santé ak mboolem seen ministre yëpp nee na loolu day wane importance bi nga xam ni jox nañu ko màggal bi jox nañu ko bés bi nee di dellu di sant yàlla bu baax ndax bi nu fi géejee ak léegi def na weer wala lu ko ëpp tuuti waaye visite privé taalibe bi ak doom bi moo ñëw ziar si tey ñëw nemmeeku si ñëw sàkku si ñaan waaye ñëw duy ci ay conseil ne tey nag ñu ñëw fi ci cër gi nga xam ne yàlla suñu borom jox nañu ko muy premier ministre bu Sénégal ne loolu buñ ko waxee nag li ñuy njëkk def mooy sant yàlla bu baax ndax nëgëni si daaw màggal gi ñoo ko seetaan ci tëdd ci lalu hôpital ne loolu la ñu amoon ci màggal gi daaw waaye amoon ci lu ëpp solo loolu yëpp mooy ci jamono jii daal la ñoom ministre Aïda Mbodj ak Habib Sy ñëw fii ziar si la Mbacké bi ñu fi jógee sëriñ bi yónni leen jox leen benn boytu tàndarma ni leen dem leen seetal ma sama doom sama taalibe ni ko ñaan naa ko digal naa ko mu jël ci tàndarma ji te dakkal grève de la faim bi mu def mi ngi woon toog de jamono jii ñu toll daal ndax gën saa gudd ñeent wala juróomi fan moo dox digg ma màggal bi daaw kon loolu di lu rëy rëy lool ci ñun luñ dul mës a fàtte ndax jamono ju ne ak li mu méngool ak li mu tollool da ngay a xool càmbar taxawaayu kenn ku ci nekk ci nit ndax foofu mu tëddoon xalaatoon naa na ni ñëpp fàttali ñu. ndekete Mbàkke suñu kilifa gu baax gii. toogul benn toogul benn fan. toogul benn guddi. ne te xelam jëm ci suñu jëmm yi. mu def ci nga def li nga war a def lépp Mbàkke. ci zaahir ak ci yi lu ci nit ñi xam ak luñ ci xamul. luñ ci yëg ak luñ ci yëgul. waaye li ci ëpp solo. nee na nga yónni ay nit. ci foo xam ne dañ doon tere kenn ñëw fekk si ko fa. daal ñaan ñu bàyyi leen ñu ñëw fekk ko fa. ñëw jottali ko ba taaxal bi bàyyi ko ci yow. nee na loolu di lu rëy ci ñun lool ba. kon lan ciy jàngati. mooy léppay jeex ci àdduna. lu door rek. dana jeex. te lu waay muñ. ngir yàlla. ak nu mu mën a jeexee ci bët nit ñi. nee ndam rek lay doon. mën na jeexee noo xam ne nit ñi dañuy jàpp ni échec la. nee fekk ca yàlla. succès la. nee mën na doon safaan bi itam. ndax. borom bés bii. keroog ba muy jógee fii di dem. keroog ba muy jógee fii di jàpp. na ne ñu ko wóorul ñëpp am nañu jàpp na. waaye moom amoon na yaqin waaye moom day amoon na yaqin. ni sacrifice boobu mu ni sacrifice boobu naataange rek ci dem. nee na ndax tey Touba du naataange naataange aw joxe. kon. jégalewuñu suñu bopp foofu. foofu sax de. waaye nag jàpp nañu. waaye ni. ku jóg di dox. te jàpp li li ngay dox lu baax la luy defar la ak loo ci mën a daj ci yoon bi te muñee ko yàlla duo taal rek nee ndam rek li nga ji la ci am solo nag mooy di ñaan yàlla sunu borom nee te di leen ñaan bu baax mbàkke ngir ñaanal leen ko nee xam na ni yéen a ngi koy ñaanal bis bu ne nee ñu ngi ko koy jot nit ñu koy dégg waaye di gën a sàkku ñaan rek bu baax. lii fi jaar yëpp. naataange topp ci. naataange pour Sénégal yëpp. pour réew mi yëpp. ba ñëpp gis ko. te yàlla may ñu ñu fekk ko yàlla di bari. Hmm? nee di daaneel kàddoom nag. ci feddali yéene ji mu am ci dëkk bu sell bi di Touba. nee na président bi ñu ñëwee ba ci rek waxaat na ko. Touba. mënuñoo ko am yéene ju rëy. ba ñàkk a bañ am yéene ju rëy. budul dara yi. bu yàlla sàkkee ab dëkk. bu yàlla sàkkee ab dëkk. boo xam ne. boo xam ni. sudul bu jiitu itam moo sudul moo ci tegu. ku yàlla dénk réew mi. nga ni damay defar réew mi. ne boo sàgganee dëkk boobu la réussir li nga def. rax ci dolli nag. rax noonu danoo am contrat bu ñu am ak Touba. ndax taxawaayu waa ci at yi weesu. nekk suñu wet. nekk suñu wet. yéen ñu. yéen jàppale ñu. xeexal ñu. ba àddina yëpp gis yëpp gis ko. nee na loolu kóllëre la goo xam ni. nee lu koy fecc day di jóge ci ñun mukk nag bu yàlla. moo tax ci suñuy programme. yéene gi ñu am. ci defar. ci li nga xam ne mooy aajowaat. ci li nga xam ne mooy waa dëkk bii. mooy aajo borom dëkk bi. bi. kenn fii de kenn mënu fee def dara te diisoo waa borom dëkk bi. ba xam lan mooy ay priorité noonu lañu ko moo dugal ko ci programme bi. te bu sooba yàlla. ci weer yi di ñëw. ci at yi di ñëw. kenn ku ci ne dina ci teg ba tam incha allah. ci lu jëm ci liggéey kon mën nañoo bañ a guddal wax ji di ñaan yàlla sunu borom màggalu ren gii ñu dund ko ci jàmm ak dal di mas wit ñi nga xam ni itam fii ci biir Touba am nañ tuuti loraange ci loo xam ni euh, euh, loo xam ni mi ngi jógee ci ndox mi am nañu yéene nañu yéene nag. ci programme yi ñuy développé. ci programme fii leeg ay jamono. fii toog naan. naan ndox ma nongu na ay kër ci waaye nag noo ngi leen di masawu bu baax. am na instruction yi ñuy jox gouvernement bi. indi nañ fi lu xaw a takku ci ay matuwaay. am na lu war a ñëw tey jii sax. mi ngi ci doon wax léegi ak honorable Serigne Cheikh Thioro ak monsieur le waaye luñ ci waaye luñ ci man rek Mbacke. pour woyofal mbir yi. pour te continuer ci liggéey boo xam ni mooy saafara mbir mi définitivement. nee na bu soobee yàlla danañu ko def Mbacke. kon di ñaan yàlla it. kon màggal gii. lépp loo xam ni. ñoo ngi ko fi def. ci yiw. ci yiw. jàng alxuraan. jàng xasida yi. zikri lépp yàlla na ko yàlla boole nangu ko mu doon xéewal ci réew mi mu doon buntu bu beefu ci li ñu bëgg nun ñëpp mooy développement réew mi defar ko ne ba ñuy ñee feneen moo xam ci arab la wala ci sinwaa la wala ci euh, nasaraan mais ñu am lu mel noonu wala lu ko raw. mais te loolu day lu mën a nekk la. mag yi ñaan nañ ko. ci réew mi. te seen ñaan nangu la. nee la ca des nag nun la. ci takk suñu ligg. ci liggéey. ci organisé wu. ci discipliné wu. kon noo ngi dellu Mbacke. nee di la sant bu baax Mbacke. nee bi ñaan yàlla suñu borom yokk wér gu yàlla sunu borom bàyyil na sunu kanam ay ati ati at mu uuf nu di ñu teete di ñu digal di ñu ñaanal di ñu orienté kon noo ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu jërëjëf Thank Tegu, tegu mikrofonu. Tegu. Tegu. Tegu.